alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillahi wa man walaahu ila yawmi diin ñu ngi nuyu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi am mbégte bu baax am contentement bu baax ci teew fii buñ fi teewee nag maa ngi koy gërëmee sama sëriñ Cheikh Baye Hadi Cheikh Mamadou Hadi Ibrahim Niass nga xam ne buñ teewee fii yàlla ak moom la mbaaxam ooyofam ci bëgg ma léegi rek maanaam ko sëriñ bi bu ma bëgg bàyyil man ma bëgg la yow si soo ma bëggee baaxu ci man bàyyil man ma bëgg la loolu moo may jariñ daf ma bëgg ba may nit ki daf ma bëgg lépp yu mu baax lépp njëriñ rek bu ko xamee rek man lay njëkk a wane ma ah nangam ak nangam xew na wala defal nangam ak nangam ak nangam kon maa ngi koy nuyu maa koy ziar bu baax. di wax ne jotaay bi jotaayu mbégte la ak contentement rek damay ndokkeel sama bopp di ndokkeel umma islam bi yëpp ndokkeel taalibe bàyyi waaye ñu ngi ndokkeel Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass ci itteem ju ji nga xamante ni yàlla jox na ko ko li li Cheikh wax léegi moo na wax ne xalifa laa toog doy loolu waaye yaakaar naa ne képp koo xamante ni ñu ngi naan la muqaddamu bàyyi nga yéen sa itte ci ci ci ci ci pay baay bi ndax toogul benn yoon xale bi gën a ndaw mën na koo tax a jóg fekki la fa nga ne saafante ak yow jëflante ak yow oyof baax tabe bëgg jaami yàlla yi la xam ci moom moo tax lépp lu mu dugg rek tawfeex da ciy dugg tukkeem taw tawfeex la dem rek toog wax ay baat nga nangul la réew nangul la réew waxuma la ay doomu aadama de kenn rek nangul la dafa jafe waaye wax rek réew nangul la loolu karaamay yàlla la karaamay Mawlana Cheikh Ibrahima Niass la waaye karaamay Cheikh Modou Mahi la waaye moom moo toll noonu ci itteem ak mbaaxam ak oyofam dañuy wax ne oyof dafa am solo ci doomu aadama gis nga mbaax na oyof moo tax muy toog fii saako ceeb diis moo tax mënta yàgg fii ñaari minute day wàcc ci suuf kon oyof moo ko may lim am ñu ngi gërëm sant bu baax a baax a baax a baax ndokkeel mboolem taalibe bàyyi ndokkeel mboolem jullit yi di wax na daal bis bi daal macha allah kontaan naa daal lañ mën a wax li ci xol yi mënuñ koo génne sant nañ yàlla bu baax gërëm nañ bu baax maa ngi gërëm sopp yëpp ak xarit yi di gërëm waa Kossy TV yëpp di leen gërëm seen taxawaay ci mboolem xarakaat yi lépp loo xamante xarakaat yi pays bi la rek taxaw ngeen wane seen doole wane seen solidarité ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax a baax di ñaan yàlla yàlla yokk ko mu dem ca kaw ca kanam nekk télé boo xam ne alami lay doon ñëpp di ko seetaan yàlla na yàlla àggale leen foofu te ngeen jiitu ko yéen nag barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke maanaam Cheikh Ibrahim radiyallahu taala anhu mënuñoo wax ca kanam bi salaamaaleykum wa rahmatullah